parce que fédération mooy financer lépp li ñu soxla léegi ci li nga xam ne mooy football professionnel gis nañu ne équipe yi euh, ci diiru fukki at ñoom ñoo jàpp bañ a di xeex ba football professionnel bi taxaw ba tey am ay championnat yu régulier mais loolu doyul li ñuy xaar benn mooy état bi xaj na mun si dugal parce que tey secteur boo xam ne créateur d'emploi la mais tamit football bi xar kanam bi mu am actuellement euh, mën euh, les ñuy wax les les les signaux sont en vert presque un peu partout L'église li ñu dese mooy ñu football amateur football professionnel bi football local bi mooy lan état bi jàpp si mun si dugal loxoom parce que am na anam yu bare yoo xam ne état bi mën na si jàpp ci trouver ay formule de financement parce que ni ñuy financer tey yeneen secteurs yi nga xam ne ay secteurs yoo xam dañuy wax secteur yoo xam ne mën nañu indi émergence football professionnel tay créé na ay emplois yu bare yu tollu le ci ay dem secteur leuma yu reuy yo xamne amuñu emplois dañ bu euh, orienter li nga société nationale ak société privée pour que ñu le club bu nek tay ni euh, def demba ak euh, ñaari tali bu fekké xol nañu équipe bu ñu jox ko ben société nationale bo dina fa dara dina tax dirigeants yi soufflé suñu équipe yi gëna am surtout tamit suñu joueurs yi parce que joueurs yi bu salaire bi gëna trois la proposer 000 dañuy euh, génération foot xol leen équipe par rapport ak championnat bi du parce que il faut mu joueurs pour nous am xaliss suñu capital suñu club professionnel joueur la kenn du fi téye jour jour bu fi baax bu fi feeñ dañ koy jaay pour mu am pour a saison bi stop mais mënul wéy donc soxla nañu ndimbal donc euh, xam le suñu sama naataango président club le li wax mais nañ si dem si dal jéem a suñu liggéeyee dix ans ba toll fii bu ñu nee non bu ñu nañu xaar état bi wala fédération dañuy suñu donc euh, dañu a continuer jouer continuer laaj li te

dina amna naa yaakaar ne démb baa ngi wax ak président Sarr ni ñu retrouvé wu ñun ak euh, comité d'urgence fédération ak euh, li nga xam moy conseil d'administration li professionnelle ñu xoolante ci bët waxante nak deug amul dara lu ñuy laxa parce que tay du dalu ginaaw moo ñu war jëm kanam rek moo ñu war.